man la Khady Lam dëkk Gaaga Chérif Souleymane Ndaw Gaaga Chérif dëkk Gaaga Chérif mom jafé jafé yu bari lañ am jafé jafé ndox dig nañ ñu ndox digaan ñuko ko digaan ñuko ko jafé ndox lañ am ñi ni dañuy yendo wor ndox bu jant bi sox jafé jafé de santé am nañ ko bo am fi doom yaa ngay dem ba bam ba nga dem Foundiougne ba ñu yóbbu la fatik ñi nga xamne fi jàngee tay képp ku am BFEM fi yaa ngi dem be sept kilomètres pour dem lycée jàng ji amuñ amuñu lycée xale yi dañu nekk ci yoon bi borom oto yee leen di yóbbaale mënuñu dox diggante bi lu ci bëri seen njàng di yàqu looloo koy yàq te amu élève bu bugg a xëyee fii dem sept kilomètres waat ci ñibbi si waat wara a gontuñ loolu benn élève mënu ko te groupement yi am nañ jafe-jafe bugg nañ ndimbal ku ñu dimbale ñu ngi bugg a liggéey mënuñu liggéey buggu nañ ku ñu dimbale si groupement yi jigéen ñaa ngi am groupement amuñ liggéey buñ xëyee toog bu àll bi jeexee amatuñ benn dañuy xëy rek toog bugg nañ la ngeen jàppale ñu si dimbale ñu si. ah ñun fii dëkk bi ay béykat lañu ay nappkat lañu am nañ jafe-jafe ci mbéy mi ndax jiw bi duñu ko am engrais duñu ko am euh, géej gi dañuy napp crevette bu ñu nappee ñu am fu ñu ko jaay yooyu ay jafe-jafe la. jafe-jafe yi moom bare nañ lool lool lool jooytu nañ ko fu nag suñ dëkk bii depuis ñu ko lotissé ba léegi lotissement yi sax ku ñuy jot terrain yi sax munuñu ko def waaw ah, wóor nañu fu ne wax nañu fu ne mais ba tey kenn ku ci ne terrain yaa nga versé woon ba tey amagoo ci lenn loo xamante ne wéeruwaay la boo xam ne fii teg nga ko donc am naa tey xool bu tooy ci ñëw fii ci gaage jarul sax ngeen di ma wax loo xam ne war naa ko def ci gaage soxlawu ko parce que amaana maa leen ko sax gën a xam sama maam Siga yàlla na yàlla yokku leeram saa bu ma ñëwoon dugg néegam man ak moom li may wax li ma daan wax mooy Aliou bàyyil sa xel ci dëkk bi maam Siga fu ma ko gisoon dina bàyyi sa xel ci dëkk bi loo mën a jàppale dëkk bi nga jàppale leen tata awa mu nga France saa bu ma woowee li may wax mooy Aliou mbaa xamoo kenn ci gouvernement bi ndax waa gaagee am ndox jàppale ma ci ko ci xam nga woo ko pour ñu am forage am ndox ma ne ko tataa incha allah dina sotti boobu bi ñuy wax loolu xamuñu sax ne lii ngi ñëw ah ñu jàpp nag ne li fi am yàll na ko yàlla mottali te bu kenn dee jóg takk suñu ndigal liggéeyal Sénégal